soxna Momy Kébé ni mu ko baaxoo defee at mu jot defaat na ko ci dimanche ji dëppook le 22 mai 2022 ci wàccaayu màggaluk Serigne Abdoul Ahad Mbacke gi mu ñëw ci Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy xalifaam ziar ko ni nga xam ne noonu la koy defee at mu jot jébbal ko àddiyaam saafonte ak moom yeesalaat digganteem ak Serigne Sidi Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad waaye yeesalaat diggante waajuram wa di alxaaji Babacar Kebe ñu gënoon koo xam ci Ndiouga Kebe ak sëriñ Abdou Lahad Mbacké gi nga xam ni diggante bu yàggoon la te tax lool. tànk yi nag at mu jot soxna moomu Kebe ni mu koy defee ci sëriñ Sidi Mbacké moom sëriñ Abdou Lahad noonu it la koy defee ci ñu bëree bëri ci njabootuk sëriñ Abdou Lahad Mbacké gi. ndax yitteem ak bëgg-bëggam mooy fépp foo xam ne waajuram wa tegoon na fa tànkam ci jëf lu baax mu tegaat fa tànkam.